kaay yow ne ko Amina pare bu yàgg day déggu tuuram ah yow ne ko Amina pare bu yàgg day déggu tuuram ah ami lii lépp ko waral Amina guddi tey nga guddi sa noon du Amina guddi xam nga guddi tey sa noon du nelaw ah Amina guddi tey xam nga guddi tey sa noon du nelaw Amina guddi tey xam nga guddi tey sa noon du nelaw ami ku ko tasu doo yori loxo Amina ku ko tasu doo yori loxo Amina ku ko tasu doo yori loxo ku ko tàccu doo loxo lu xewati amina de neex na liyenam amina de neex na liyenam amina de neex na liyenam amina de neex na liyenam ami yaa ngi rek yaa ngi yaa ngi sa loxo bi nga baala jam xeer yaa rek amina lu tax Amina Daw xoolal yaa ngi rëkk yaa ngi yaa ngi rëkk da nga ngëb bi nga baala jàpp xeer yaa ngi rëkk Amina Poté lu tax Amina de neexal yéenam Amina awa yaay awa yaay awa yaay yaay suñu awa yaay suñu yaay Amina dee neex na liyeenam ne ko Amina dee neex na liyeenam Ami jongama nii la war a mel Amina jongama nii la war a mel Amina ku doon liggéey jërëjëf wàcc leen borom tool ñëw na ku doon liggéey jërëjëf wàcc borom tool ñëw takkal koko yow la waa ji doon xaar takkal koko ah moo takkal koko Amina nee na yow la doon xaar takkal koko muy yéen bu ko kenn piis bu la kenn piis bu mel nii nag du ko biis baal fitu góor ñi dal góor gu fi nekk yóbbu nga fitam Amina ma ko wax réew mi seede ko bu ñu sonal njaw du mel ni lem ta jooja fajul joojo Amina nee na kuñ ko wutal nëbbu Amina na ku ku ñu ko takkal nëbu ku ñu ko wutal nëbu ko jabar ñett bi nga noob bi la ak bi ñu la noobal jabar ñett ah Amina baal fitu jeeg ji dal Amina baal fitu jeeg ji dal Diawlo baal fitu jeeg ji dal Amina baal fitu jeeg ji dal xamoon naa ko fooge woon naa ko xamoon naa ni nii rek lay mel xamoon naa ko muy yéen kon xamoon naa ko fooge woon naa ko xamoon naa ni nii rekk lay xamoon naa ko sooje woon naa ko xamoon bakkil yéen kon aaya amina aaya góor gi la loxoom ci soos ki la bàyyi loxoom ci ndambe xoolal ki la jël te loxoom ci suuf ki la loxoom ci ndambe laay lay la laa réew am noppa nga ca ak mii la ñee waxoon ñee déggees na ko ak ñii wax ci biiri wax defante koy dindi bax ma noon yagasoon dina seen tudd ñoo ca dugg ñi takkoon takk bi ak ñi yoroon caq ak ñi yoroon oto yi dem tëri Amina mësta am jëkkër moo ngi dooga am jëkkër jëkkër ñett jëkkër ñett jëkkër ñett bi nga ak bi la nopp ak bi ñu la ak bi Amina mësta am masa am jëkkër ankay masa am jëkkër ankay amina masa am jëkkër ankay mani masa am jëkkër ankay waaye su xamoon lii su xamoon lii teel nangu xam suñu xamoon lii yow la ñuy nangu am na lu fi xew yemu dagga ngeneel néegu yaay maa la man kenn du ko wax ku ne xam nga ka dang ko du doon xaar tey yegsi na jëkkëri naar la ñu doon moo jëkkëri naar la ñu doon xaar tey yegsi na Amina doful dina jàpp pantongolu ko da doon xaar da doon xaar yàlla yegsi na ami du fi buuse fii lay dee Amina du fi buuse fii lay dee jeeg na diju jeeg na diju jeeg na diju yàlla day ñëw mbaa nga yónni musta am jëkkër moo ngi dooga am jëkkër Amina kon baal leen ami baal leen Amina baal leen sama rakk ji baal leen boo leen baale dañu koy defaat ñafal ñafal ñafal ñafal ñafal ñafal ñafal ñafal boo amee jëkkër ba ko fi gis ku am jëkkër téye ko amee jëkkër ba ko fi gis ku am am jëkkër ba ko gis ku am jëkkër téye ko mu yéen gis ku am jëkkër ba ko gis ku am jëkkër téye ko américain bi dikk na ki ñu doon xaar dikk na góoru njole dikk na ki ñu doon xaar dikk na moo naar bu weex bi dikk na ku ñu ko takkal nëbu ko yow mii la Amina jëkkër bu dee géwél ba bu dee njaago ba bu dee lawbe ba ko bu dee giir ba bu dee olof ba bu dul naa yàlla ndayam ami mbaa bég nga sama rakk ji mbaa nga góor bu la teralee dagg avion ba dikk fi indi sa bàgg di la ko takkal mbaa kontaan nga moo amina mbaa bég nga tey moo sama rakk ji mbaa nga tey ami yàlla du juum yàlla du juum yàlla du juum du jël fayu ay da dem jox ko kumba yàlla du juum alu tax yaay musa am jëkkër moo ngi dooga am jëkkër càmmi ñu njole càmmi njoole càmmiñu njoole moo bàkkal càmmiñu njoole américain bi càmmiñu njoole mooy kii lay teral càmmiñu njoole nijaayu mam jaara càmmiñu njoole diggante bi ku ko nar a yàq yàlla na nga di dee di di dee di dee kenn du la suul doo dee petit dee grand dee sax toog la ñëpp di xaar bul buus doo wure kàngam loo gënal ku ma yóbbu mandu liñ falluwaa wa buso baaraam mi ci kàddu gi bas ma beeru bul buuse place bi nga toog ñëpp ko bëgg bul buuse góor bébé defar leen bongo yi jigéenu Malick dafa ñëw dama li tax te dama ne su ma naar naar bu ci yëngali mbagg waxuñu ak ñoom man sama naar bi jalaayu waayal tax lii e waay ne you know what I'm talking about you bakkal Amérique bi waay yow agaacu yaa ngi koy bégal ku leble fayu fayul ba mu neex ku leble fayu ne ko ku leble fayu fayul fayul ba mu neex la ku leble fayu Malick Malick Fall ma ñëw Malick ne leen ca njëkkënan ci bu ñu xamoon bi ko yaayam di boot ñooy dagg mbootuma aw leen li waay man sama naar bi jëkkër yi ca jëkkënant bu xamoon bi ko yaayam di boot ñooy dagg mootu waaw waaw xoolal loo bëgg ma tudd ba nii nga may defal ca Amérique kenn du mel ni yow Malick naam jikko naar baa ngi nii teral sa ndey bu dee joxe barke kenn du yërëm del gaaw ne maana fal del yëngal kenn du mel ni Amérique ku feebar nga faj États-Unis ku feebar nga faj ku jóg ci yoon wi bu ñëwee nga jox don kenn du mel ni yow xoolal doo ma laaj yaay docteur ci biir famille bilaay faal yaay docteur ci biir famille de dama ne ñii nga pikir ñii nga joxe doom ñii nga enterré yow yaay docteur ci biir famille yow yaay docteur ci biir famille baayu Mariam yaay docteur ci biir famille dama ne teral sa ndey bu dee joxe barke kenn du ami sama rakk ji nee leen poté saaliw bakkal ma ñëw poté saaliw bakk leen ko poté saaliw bakkal ma ñëw poté saaliw waaye naar nee ko yaayi marem naar xolal Amina tey ñu fay la sa bor tey la leble woon neex dooma laaj li tax wure kàngam loo ma gënal ku ma dàq ba yóbbu mandulin amaguwoo jëkkër yaa ngi sooga am jëkkër xoolal sonoon nga ca amina sonoon nga ca amina jooyoon nga ca yeleeta ami lotoon nga ca yeleeta baayu fajal na la ci baayu Mareem Naar bégal na la ci yitaa wurateek da nga koy teeba wuratay ñëw def ci junni e dama ne ami li noon yi bëggoon dalu la amina li noon yi bëggoon dalu la xoolal mim réew noppa ngi fi e bu ñuy waxee ñi jottali ko bilaay mim réew noppaa ngi fi su ñuy waxee ma ñëw xam nga wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg maka ku fa sàcc dagg sa lu waa fa réew mi ku fi am jëkkër nang ko téye njaale xam nga ki may taasul doful jinne jàpp ko pantongolu ko njole Amina Laani musa am jëkkër moo ngi dooga am jëkkër gëm naa ko nangu naa ko jëkkër na la nopp ànd ak mbokkam di la nopp waaye njole taxawal tuuti ma wax la dara boo amee jëkkër ba ko fi sa jëkkër téye ko boo amee jëkkër ba nit jël jëkkër téye ko jëkkër na la nopp te nopp ndayam xam nga Amina mi doful dina jàpp ko xolam la yàlla indi ci yow loolu la yàlla def Amina du la taraayir te yow it doo yàlla du la taraayir yow it doo ko taraayir amina loxo bu la bàyyi loxo ngi taxaw doo dem ci loxo waaye loxo yi fi nekkoon matuñu loxo ab loxo ngi nii dama ni gaa yi fi nekkoon dañu dem xaar waa ji Ambali Duuma man nangu naa yaay nañ nangu rakk nañ nangu jalbaat yi nañ nangu njëkk jigéen nañu nangu taaw nañ nangu kii nag kii toog ku ko am jëkkër ko wax leen ko la am jëkkër la ku la am jëkkër la boo amee jëkkër ba ko fi nit téye sa jëkkër téye ko xoolal am na lu fi xew man dinaa ko wax ay murit lañu ay murit lañu ay murit lañu ay murit lañu Serigne Saliou Amina mu Serigne Saliou Amina mu Serigne Saliou Amina mu Serigne Saliou Seexi Saliou suñu mbër li mu nekk dug ñime bat daana fayam tadu wor kooka way ko rek kama ñor mu Serigne Saliou Malick daj na ci wax leen Malick daj Njaale. xam nga lu xew. Malick mii toog fii rek neex na Malick xanaa xamoo ca miim réew am noppa nga ca ak nee la waxoon ñee dégg gis na ko wax ci biiri wax defantee koy dindi ma noon yagasoon di la seen tudd ñoo ca dugg diggante ndar géej ak ndakaaru ak amerika ga nga nekk xam nga lu leen tee nelaw a du ñu mel ni yow dooma laaj lu tax doo ñoom te du ñu du yàgg ba ñoom nu ñoom doo bokkañ Malick suñu yëf duñu ko ba kenn te duñu ko maye suñu yëf Amina bal fitu jeeg ji dal bal fitu jeeg ji dal dal xam nga sa yoogu wayu fekk ko ñépp nopp dañuy wax rek waaye kenn du waat Malick dina waat tey ndax yegg si na lu tax lal bi yow lay xaar kenn tëddu ca saal bi yow lay xaar kenn tëddu escalier yi lay xaar kenn kenn yéegul fii te kenn duggul fii te kenn deful nii loolu la yàlla def Malick ku nekk ak ka yow la ñu àpp xam la bëggee yar ak fulla ak fayda ak nangoo liggéey Malick suñu yëf la duñu ko ba kenn duñu ko maye suñu yëf la moo suñu yëgoon lii suñu yëgoon lii teel a nangu ñun suñu xamoon lii lii lii lii te yàlla nangu baayu Mariam Naar bakkal baayu Mariam Naar garmi moo baayu Mariam Naar garmi la sax xoolal junne dërëm la yamale ab tab la nday jël ko nuroo daa teel a dem atimik takk ndigam am fulaam am faydam te du mbojo mbojo baayu ma dem naar ku ko am am jëkkër ji gën dama ni baayu ma dem naar ku ko am am jëkkër ji gën xoolal du la dóor du la xas te du la saaga te guddi gu jot mu ah du la dóor du la xas te du la saaga te guddi gu jot mu ah Saar mu xam nga doo tapet doo tapet doo tapet tapet du ko toogee ni nga ko defee doo tapet a ah, lu tax mbasa mbasa xam nga li xew tey mësa am ndakaaru lii xew fii tey mësa xew ndakaaru nit ni li xew tey li xew fii mës a ndakaaru nañ ma sànni tuuti musuwaar ci biti waa <laughs> téel ma déedéet boobu moo ànd ak ndaw si beral ma ko ngele dama ni nit ñi dañuy def any time yooyu xew fi tey nit ñi di def mariage loolu xewu fi tey nit ñi di def takku jàkka yooyu xewu fi xam nga lu fi xew tey ak de bague waa ji takk na ndaw si te coow jibul um génnaat mani matuta miim xoolal ki joxe jamaa bi njole dama ne xoolal bàgg bi ami naa takk xool ki mu dend moom te jox ko bàgg bi boo ko xoolee xam ne moom bu nee kii bu nee kii naa la indil bàgg bi dëgg la waaye accueil de bagg nag moo fi mës sa ndax nit ñi dañuy nag ba ca jouru mariage ñuy def yëpp te takk gi weesu na romb na bu yàgg ñuy takkante nañ ba pare beneen bi ci topp mooy takkante te gisante wuñu takkante te doyadi wuñu takkade takkante te manqué wuñu waaye ma day leen lu tuut te lu ma sa xew ci réew mi bu xewee il faut nga ne ko def jërëjëf jërëjëf nag naar bi yàlla yàlla defal la jàmm ak sutura xewal sa doom yi yal na ñu fekkee sa njëriñ yëpp waaye yàlla na la yàlla sarax ci amina mi am sëriñ saaliw ndax nag dëgg la def lu baax yomb na mais ni nga ko defee moo jafe dañuy dem ndar ndar ndar bi ndar ndar bi yow lañu choisir ñu dem pare nga yow pare nga yéen ndar ndar la ndar ndar bi moom lañu choisir buñ jugee ndar dem Amérique yow la ñu choisir yal la yàlla yiir talafal la cat dal sama xel nag sa yaaya liggéey lii amina du tapet waaye yow it doo tapet tapet du ko toogee nii nga ko defe am naa jom kenn du ko wax dañ la koy waxal xoolal nii nga ko defe su ma ko mënoon nii nga duma ko defee nii nga ko defee xam nga bañuma ko mënuma ko sama tension ko dul nangu yaay weñ gu bañ weñ gu bañ a jaaxal ma caam tëgg yaay weñ gu bañ ah dëkk ba ka defar ba lañu doole bu ñuy dem ndar Amina rëkk ko rëkk ko rëkk ko rëkk ko rëkk ko def cortège ba ñu romb jam ñaajo mbarta romb kees romb Louga ba dugg ndar dinañ xam ne ñoo woolu ndar jeeg bu riis billaay bu may dem ndar jeeg bu baax lay àndal ak néegu ndaayam loolu la yàlla def ndara ngi billaay ndar ndékkul ndar ndara ngi ci biir bi moom lay xaar ndara ngi ndare xam nga ndar nekkul ndar ndara ngi ci biir bi te moom lay xaar ndara ngi bu suba ca ba mareem naar dem dinañ ko dóor ba damm ko yóbbu ko ndar ca biir ba kenn du ko dindi eh yaa dugg ci suñu garde bi ndar-ndar bu dugg ci suñu garde bi waa dégguma dara de dégguma dara de ndar-ndar bu dugg ci suñu garde bi ndar-ndar bu dugg ci suñu garde bi bu subaa ca ngoon bu Mariam tëddee Massar Mbaye bu subaa ca ngoon ba Mariam ñibbi baayam dina xam ni sëfoor ba koy yóbbu ndar moo ko gën a xam yoon ni ndar Marème bilaay dama raarus ndar dëkkul foofa ndar fii la dëkk xale nii jongama nii moo dàq ndar laala ñuu jooy sa baaya takk femme bi ko marié guddee yaa fekke xam nga li nga fekke neex na sa yaa fekke ah. fekke añ bi doo fekke fekke reer bi doo fe bu guddee ñu lala la ci suuf xale rek bañ a yëndu sa baay dina xam ne ndar du basa <laughs> Ndiolata man Marème Marème vraiment sama doom nga di sama séddoo nee naa ko yaa fekke mu ne ma fekke wu waaw kay fekke woo waaye yàlla na nga gudd fan Marème dama la dama laa wax léegi ci biir néeg bi waaw dama ko wax léegi njole ci biir néeg bi ni ko ab taaw mooy moroomu baayam taaw bu góor taaw bu jigéen indi la fii mu la indi fexe ba nga bokk du par doom yëpp fekke loolu de am na ko am doom takk jabar te doom ja amul fitu dugg kër tantaam te du tee tantaam sëy waaye nii ñu la adhéré dañ lay wan la yow sa moroomu baay nga ndax baay ab ta ak ak ab taawam maganteewuñu dara sa baay bii nag am koo gën ñàkk ko man de ni ma ni ma gis mu di la ko def bokk ak yow añ di tam-tamee ah man bëgg naa doom ju baay buy def noonu doomam bariwul nag yombul waaye expérience boo koy maye boo fi juddoo yaroo fi màggee fi doo def noonu sa doom danga naa noonoo warta fekke yii warta def yii waaye sa bàyyi li tax mu def loolu mooy bëgg nga jàppal ko kiiwam bëgg nga fonkal ko kiiwam xam ne moom fonk na ko yàlla boole koog moom par force su la toog na ba noppi dootu fi jóge par force su la Amina sa yaay mi mooy jur sa caatum baay loolu la def doo ma laaj fi wa déwén Amina dina indi ay seex yu góor nga koy bootle nga am jëkkër am ca doom ju góor doom yooyu andre dem jardin xam nga lu tax a jël sa yaay ngay taaw ba ngay gone màggandoog sa baay gis femme bi def ko jabar te ku ko bëgg mu kenn ëpp ko mbëggeel waaye ku ko rëkku mu kenn ëpp ko jingo dooma laaj lu tax sa bii ku ko am ba ko dootoo ko bàyyi doo ko sànni doo ma laaj lu tax daa yéwén te góor day yéwén daa coofe rafet te góor day coofe rafet kii nag su xamoon lii ba mu juddoo doon tut tànk la ko kii di tag mat na ko jëkkër moo tax duñu taraayiir te ñu nit duñu ko taraayiir amina ñu baal li ñu baal li nañ leen baal ana waa parti ñu baal leen ñu baal leen koo faral koo ñun de ñoo ngi ñaan ci màggu yàlla ak baaxu rasul la yàlla guddal sa fan yàlla la yàlla lafal cat yàlla nga fekke sa njëriñu njaboot gépp waaye sa sëy beeg Amina yàlla ko yàlla téyel boppam njole xare ka daw dàqul kañ jam dàqul jaloore boroom a koy nettalil boppam mën naa ko kenn du ko wax da koy jëf ñu xam ne yow mii mën nga ko te sa digganteeg Amina mbaa xam nga siiwul kat xam nga lu tax yëpp am fi tey Amina moo bëgg a dalal dalal xelu ñenn ñi xamal leen ni am na boroom kër am naa jëkkër nag ak am naa boroom kër du ñu benn. jëkkër mooy ki nga xamante ne danga koy faa mu faa la jib waaye jabar soxna ak borom kër mooy seen diggante bii yéen ñaar ku ko nar a yàq nag yàlla bu ko fekkee diggante bi ku ko nar a yàq yàlla bu ko fekkee xam nga lu tax yàllaa ko tudd ci azal yàllaay bind jigéen lëmas yëngal ba mu yëngu mu ni ku bëgg ruu yëpp yëngu ni man bëgg naa ruu bu ma soon wax ca aras ni man bëgg naa yàlla dina la boole ka nga waxoon ni bëgg naa ci àddina kon yàlla pare na ci sëy pare na ci juróom doom pare na ci asgor su war a am teraanga ñun nag sant nañu gërëm nañu ñaan nañu yàlla rabu tabaraka wa taala moom mën a fank cat ak làmmiñ ak musiba balaa yàlla la fankal cat ak làmmiñ ak musiba ak balaa yépp nag li ci gën a neex mooy ni nga def Marème Naar mii ñun ñun ñun sànniwuñ ko benn fleur waaye bàyyi bu mel noonu dafa jafe bàyyi bu lay boole ci intimité am añ jot ñu añandoo heure reer jot ñu reerandoo benn baay defutu ko xam nga lu tax doom doom la tudd bàyyi tudd baay te damaa taasuloo Anta Babacar ni ko ku bëgg bayre fexeel sa bayre te ku bëgg waaw góor bëgg say morom bu ëllëgee boo gisatul sa baay gisoo sa ndey mel ni nga war a mel ci say morom da ngay fexe respecté sa baay ak lu mu respecté kon boo defee déplacement ñëw ci Sénégal jóge direct aéroport jubal fii sa kër soxna si loolu rek a tax Amina woo ay xaritam ni ñëw leen ñu añandoo ndax Malick daf fii si heure tel te bëgg naa bu ñëwee ñu béggal ko ku fi ñëw rek loolu la la wooyee site yi nag ak internet bi xam nga lu leen fi dañoo bëgg gaa yi rek xam ne Amina moom. li des ci dundam ba koroog muy ñibbi Touba pare na moom naar la ami tayit sa mal fa ngay xaar ak sa gaava ak sa ak sa jaguar bi ñu war a tëgg te loolu ndar lañ koy tëgg jee dañ koy muur mu dem ndar buñ demee ndar nag ci jigéen ju baax ja liggéey liggéey bi ndax damay faral di wax ni ñaari wujj sax bu ñu wujjee nañu wujjeeg seen yi jëkkër ji jur seen jëkkër ba ñu nopp ko ñoom ñii bàyyiwul kenn xel te Amina mi bàyyiwul kenn xel sa yaay rek la bàyyi xel ak sa ay mbokk ndax say mbokk ak sa ndey ju baax ja moo waral lii tey yal na yàlla guddal sa fan yal na la yàlla sàmm làq la fu yàq àggul Amina nag day jàmbaari Serigne Saliou Fat Jaxate seexi Saliou woy suñu mbër li mu nekk jug ñime ba daa am ak fayam te du war kooku way ko rek ñu ko rek ñu ñor mu jël Serigne Saliou def ko ni mu ko def fii ku fi toog rek àndu démbam nga amul benn xaritu tey ñii ñëpp loolu nag xam nga lu ko indi respecté la ak fonk la yàlla yàlla laf cat fan yële dafa génne ni damaa bëgg ñëpp comprendre ni damay sëy te damay sëy ba koroog may faatu loolu lañu loolu la dëggal nii tay ndax ñii taxaw ñii ñëpp yor seeni caméra jàkkaarlook ñun ab tàppet du leen woo ku ragal du leen woo ku fasul yéene àggale la nga mbébét doo leen woo kon bu leen woowee bokk ak ñoom métier bi bokk ak ñoom liggéey bi ñoom ñëpp ñu def déplacement ñëw mu añal leen bégal leen ba heure bii jot mu ni da lay bégal nga ñëw indi bàgg jamaa takkal ko sa jabar yàlla na yàlla laf cat ku fekkee lii yàlla na nga fekke fajar teel ñu baax ci suuf def ngénte li ci barke yonent bu tedd ba ci Medina Njole jërëjëf Thiam rafet na dama joom mi nii la def Mor Thiam laaj dara Amina rek moom xew mi yàlla na yàlla na ñu yeggalee suñu sago ah? ah dégg nga nii lan may def de bu leen ma zoom de arrêté leen. <laughs> de ah, ah, toog nii ah. gaawal kay gaaw naa ma ma toog ma ma noonu wax tuuti rek du day dafay gàtt sax nag sama waa ji jëre jërëjëf lii nga def tey du tey rek nga ma woo ci lu mel nii ci lu baax ndax nee naa man Ndiolé Tall man képp kuy def lu baax soo ma ca woowee damay ñëw waaye képp kuy def safaan soo ma woyee doo ma gis parce que man noonu la nu ma yaree ma bokk kook sama waa ji nag taxaw muy moor ku bëgg lu baax mbaa nga bëgg a neexal di nga woo njoletaal woo moor ñu defar ba mu baax ndax sama waay la te yàgg nañoo daje ci milieu bu mel nii waaye dama bëgg rek leeral tuuti parce que man defe naa ne sama waa ji genre yu mel ni moom yàgg nañ may gis ci seen jataay mais foog ngay wax li tax ñu la fay gis ñu xam ne boo fay ñëw sopp ak mbëggeel la fa indi dafa jar di leeral damay mujje Amina ndax moom moom bés bi waaye kon damay ñëw ci malik damay dem Amérique di dem New York yàlla boole ma ak moom muy sama càmmiñ nag loo xam ne wonewu ko ca doxewu ko ramasi sama jabaru nijaay yàkkal ma ko muy def lu baax di dimbali ña fa nekk ca wanewu ko di dox ci social di jàppale ay doomu aadama yoo xam ne bëggul sax ku ko wane gis nga lii ñuy wane ci internet bi lu mënta ñàkk la ak mu xamanteeg ñi nga xam ne ay nitam lañu waaye li muy def ci suuf faal moo ko ëpp man nag yàlla dem foofu far force mu maak ñu mel ni moom ndax damaa bëggaabal bëggaabal bi mooy damay dem ca ñoom di leen fekk Amérique yóbbu fa nag personnalité yóbbu ma fa benn doyadi fépp fu ma demee ci ñoom rek dañu maa woo ñu bëggal ma seen bopp may ndaanaan yàlla def nag yàlla boole ma moom faal waaye du ma dugg Amérique mukk même bu ñu gisantewul dañuy déggante téléphone ba ki rek may génn Amérique muy waxtaan ak man loo xam ne waxtaani jàmm rek la ak nu may def ba jàppale sama réew nu may def tamit ba dimbali doomu aadama te kenn bañ a yëg ku feebar sax. dinañ ma woo téléphone ne ma njole man la engrais ma waaye yow numéro Malick Naar xamoo ko man la bul bul bul eggale da ngay arrêté léegi su ma koy woo orange moo ne bi di la dal nga di ko def rek te yàlla tax faal yàlla na sa jàmm yàgg xamoon nga ne nag yàlla dina la boole xale bu baax bu mel ni ami naa Poté nga xam ne doxul taxawaaluwul doyadiwul ndax nit ku nekk bu amee bés rek ci lu baax li nga ko xamee loolu nga ko mën a seedeel man de li ma gis ci moom rek laay wax këram julli waxtu jàpp bu jotee mu julli lii laa ko xamal Amina bu ma sañoon ngeen fekke ma dama bëgg ngeen arrêté lépp ngeen déglu ma ndax yow nag bu may ñëw ci yow duma tàyyi heure bu nu bu nu demee fii tudd ñu tuddee ko doom danaan ma fan nga nekk njole ma ne ko maa ngi sama kër million bi ci sama loxo nga koy teg mbala téeméeri junni bi ne ma demal nga yóbbu ko xam nga sit yi bu nu toogee nii day jar nga leeral sa diggante ak nit bala nuy defee ne ah Ndiolé dax ah ma xalig naar dee tax mu dem ah déedéet Amina déedéet dafa yàgg kii daf may teral lu kenn dul yëg sama diggante ak moom te bëggul sax ma wax ko ñëpp nag la koy defal ndaa naan buy dund ci àdduna rek àllam du la job ndax noonu la mel te noonu la juddoo dafa yàgg gën yàgg riis duma ko jeter fleur lu mu def la ma di ko wax waaye Fall yàlla boo ragloo sa wërsëg danaan man bu ma amoon tey sax jabar wala ma am soxna su baax mu may tere man damay ragal tàqali koog man ne ko lu tax mu ne ma dama bëgg def lu baax yaa ma ko wax faal man la ki la yàlla booleel day tab la muy Amina Poté ngi ñaan nag yàlla na yàlla barkeel liggéey bi fa tubaarikàlla maasàllaa yàlla yokk seeni xéewal yàlla may leen njaboot gu barkeel lii la woon loo xam ne mën nañ ko seede parce que buñ la gisee ci millier yu mel nii te chaque jour ngay am ñeneen ñu mel ni moom dañuy defe ne xaalis moo la fa indi wala dara déedéet kóllëre la fa indi faxal kóllëre moo la fa indi bi nal bi nga gëstoo rek wàcce sa valise yem ci man ni nga ma accueillir rek xam naa ne loolu bëggeel la ca man boo ma bëggee fukk bëgg naa la ñaar fukk ndax sa jikko nag ak sa jàppale doomu aadama kon sa digganteeg Amina Poté yàlla na ci yàlla def njaboot gu barkeel yàlla na ko cat seexlu faal sa jikko ji nga am sa jabar ji am ko yàlla bu seytaane mën dara seen diggante loolu laa ne woon rek naa ko leeral ndax jamaa moom nga bu demee Amérique ci gaa yi waaye nag sama waa ji tubaarkalla macha allah yal na leen yàlla lafal cat foofu laa koy dëggee waaw loolu rek laa ne woon naa ko leeral dafa aajowu yéen nii boo leen taxawee ñu leeral loolu foofa toj ah Fall booba yii xewul kanigay papa gay xaar mii jur xale bii uufu woon fii léegi mat na ci seede waaye nag boobu ba léegi li ma la wax léegi ne la da ngaa fexe ba ci biir réew mi kenn du la li ma la defaloon kenn du la li ma la waxaloon asgor rek nga ku bëgg sa bopp rek nga man nag sa borom kër tey laa ko mës a gis waaye tey bi ma ko gisee laa ko naw xam nga dox ma naw ko yi mu jëflanteek ñun ci benn place gis xaalis bi day jeex ñun bërkaati démb ak bërkaati kaati démb ak at yeeg weer yi ñu génn yëpp ci yii la ñuy dugg ñun demuñu fenn bu wari jiwuñ dara ci réew mii lañu dëkk te ku fi rëkk lu baax lu ne ñooy taxaw ci géew ba bu dee minio ñoo koy joxe bu dee taas ñoo koy def ba mu gën waaye yow sa jëkkër li tax ma naw ko mooy li mu def tey te fii la ko defee fekk ay géwél respecté leen fekk sit yi toog nga fonk leen ku nekk nga jox ko cër bi nga ko war a jox te loolu mooy respect te nit ñi bëgguñu wurus bëgguñu xaalis respect rekk la ñu bëgg yàlla la yàlla dolli sax yàlla dolli la sutura may la gudd fan may la wér dolli sax bi te balaa déwén yàlla ñu ngénte ah mais mën naa nekk. xam naa ne daal cent dollars yi. cent dollars yi taxul ku dégg alxayri bëgg nga ca dara. ma ne ku dégg alxayri xanaa bëgg nga ca dara. te sëy ak nit ay cent ans te moom mii cent ans lañuy ñuy ànd ak moom. waaw loolu nag il faut ñu am ku ñuy la jël benn xale bu ndaw bu ñuy la boo xamante ni nii dañ naan bébé Amérique bi. mu def ay yëf naa naa naar bu ndaw sànni ay kàddu yu rek yu ndaw euh, may gërëm ñëpp ñi fi teew di sant ñëpp parce que ma ne ma dama bëggoon sànni ay kàddu yu ndaw rek. Eh, dégg leen kii wax na dafa bëggoon a sànni ay. dégguma wolof nag déggul <laughs> sama wolof leerul. nee na wolofam leerul. waaw kii mooy yu mag yi ci réew mi yëpp moo leen di mag yi nga loolu tournée internationale la nekkoon ak artiste bu mag ci réew mi. man sama bëccëg gii moo tax mu daw ñëw moom daay wax ci man mais man maa waroon wax ci moom moo teewe ma. yow rek ma jàppee ba tey sama mag la sincère la def ci man ba ñëpp naan ma da ngaa nuroog ñoom. barke Cheikhul Khadim ñi fi nekk ñëpp baax fii ñi fi nekk ñëpp sama ay mag lañ barke Serigne Touba mais ñoom dañu ma bëgg mais gis nga kii da cee raw moom ndax liggéey télévision dafa metti kuy génn chaque jour tele bëccëg bu ne million ngay sol. bëccëg bu ne million la ndax boo bëggee sol yére sol dàll defar sa kanam takk bijou da nga yàq lu bari ci xaalis mais moom da cee jàpp barki Serigne Saliou Mbacke kii du kee du keenee du kële kii Amélia la Sénégal ñëpp ko xam ndax artiste ci réew mi yëpp moom moo leen di yee kilifa la ci réew mi macha allah Juma Jeng jaxate la tàggatoo léegi doon ko maquiller da koo taf tafee sax ndax sama lii mère Juma Jeng ne ko poté sama doom la dawal barki Serigne Touba. moom lu mu wax ci man rek na xam ne man maa ko gën a bëgg ndax man Mor mënu ma ànd ak ku sincère man duma wax ci internet parce que ñii li ñu am man dama ko am téléphone la ñu yor ak caméra man ma am télé téléphone caméra man yàlla li mu ma may bëriwul kum ko may maa ngi ciy sant suñu boroom ak samay waajur xale yi téléphone la na am man téléphone télé caméra xale yi benn bëccëg la ñuy am man góor góorgóorlu naa ba Youssou Ndour jox ma juróom-ñaari bëccëg lundi mardi mercredi ba jeudi dimaas heure bu ma neex liggéey kon man duma waxantu ku ma ne baax nga baax nga te ku ma àndal ku baax nga barki Cheikhul Khadim damay ñaan ñi fi daje ñëpp yàlla na yàlla fay leen di ñaanal samay mbokki bopp di ñaanal sama jëkkër ji nga xam ni li ma ci nam rek laa bëgg yàlla defal ma ko ci parce que mënatuma di wax di wax di wax li ma ci nam suñ borom xam na ko yàlla na ma ko ci yàlla defal ci barke Seydina Mohamed ndax ba muy ñëw soxla woon naa ko torop li tax ma naan kii mooy Niclaire Fall moom xam na man xam naa yàlla xam na parce que période bi muy ñëw geer la ñëwee moo tax mu tuddee ko bomb te bomb ku ko am ci guerre rey ci nit nga di lan. ami dellu foofu. ami loo wax daal. putin putin. putin la waaw voilà donc dafa may ay kàddu yu ma bëggoon sànni euh, sama diggante ak Amina laa bëggoon wax tuuti rek parce que ba ñu dalee liggéey ak tey je pense que ça doit faire six ans 2018 la ba tey 2018 la 2018 <coughs> la ba tey sama diggante ak moom nag awma dara lu ma ci naqari euh, Amina ba ma koy xam boobu sama tur dem na ba pare mu wër ma ba gis ma. waaye ba ma ko xamee ba tey ñu dalu liggéey ba tey euh, dëgg la sama tur demoon na de ba ñëpp xam ma xam kuy Amélia xam ne Sacré Cœur bi laa nekk di fa bay waar di fa liggéey jël sama liggéey bi fonk ko lool nag bu mu ñëwee ma commencé dam tàmbali liggéey ak moom dëgg la sama tur sori woon na waaye jëlee na sama liggéey ci zéro yóbbu ko ci cent et je suis fière de le dire fierté la aussi tey ma di ko wax ndaxte sama liggéey gën na ko fësal tey nag boo gisee ma naru ma wax sax de mais sànq ba tey sama snap mu ngi bëggee ay nit di ma wax ci euh, digganteem ak euh, soxna si naan ma naa ci dox jàmm te yàlla moo tim xam ne maa ngi dox jàmm parce que Viviane ñun ñëpp lay liggéeyal Mor Thiam day liggéey yow. di liggéey ak Njole di man mu nekk ku ma fonk lool ku ma respecté ndaxte liggéeyal na Sénégal euh, li mu def Sénégal kenn laam laameetu ko di ñaan euh, sam digganteem ak Amina bu ngeen ma ci mënee jàppale ngeen jàppale ma ci ñu dox mbokk ñu dox ko ba mu sotti parce que cofeel bi Amina am ci Viviane man ump ma respect bi mu am ci Viviane ump ma seytaane dafa bari doole nag seytaane bari na doole. waaw maa ngi ñëw. wuyu ko rek wuyu ko. waaw dafa ñaan. Ah, maa ngi. nee na bëggul woon wax. ci ci dagg bi mais c'est une chose boo xam ne man je l'ai souhaité wax naa ak moom ba pare ci affaire boobu. man dama ñëw pour yokk ñëw mu pour wàññi so um, danañ juboo incha allah kon ko bëgg nga ko man lii laa bëgg ci ay nit gis nga nit wax sa baaxu moroom du yàq sa baaxu dara sa baax yow dara n'est-ce te da ngeen wax ni fii yéen ñëpp da ngeen yàgg ànd affaire yooyu xam nga piis rek jàmm rek comprendre nga lépp loo xam ne dafay yàq nit mun ko defar boo ko defaree di ci am yàlla dañ la ci naw yaa ngi comprendre fii amul géer amul géwel amul booy yi nii grand yi nii ñëpp benn lañ gis nga ñuy yore ay téléphone tey dina ci am koo xam ne yàlla dina ko dimbali mu am télé lu leer laa la wax nii gis nga ki gën a tuuti fee toog di def benn affaire di ci gis boppam ah yàlla dina ci dimbali nit dans deux ans trois ans mu ne fiif est-ce que xam nga li ma la yàlla moo yor wërsëgam di ko jox ki ko neex gis man bi may jóge fii maa ngi maa ngi doon dund di tedd ma dem Amérique mais dama ko gëmoon mu nekk sama ambition lu ma bëgg teg sama bët foo xam ne ñi ma fekk si dëkk bu ñu juddu fa li ñuy yore laay dem poqati te yàlla dimbali na ma ci namuma dara namuma xaalis namuma or namuma jamaa namuma oto bu rafet fii dara Sénégal li fi am nii hmm. ay game la xam nga game ñii dañuy play ñii di play gars yi di kii nii fii affaire yooyu mais gis nga fële ah foofu mooy reality bi reality bi mooy loo fa jaay gis ku ko jënd minute amul xaar boo fa jaayee rafet gis ku la gën a rafet boo fa jaayee ñaaw gis ku la gën a ñaaw mooy maanaam looy doxal minute nit romb la ni la maaloo mën fekk xolal danga koy gis ak téléphone mu taxaw ni téléphone di caméra wala di filmer nga def ni yorul dara mën na la jënd moo tax gis na mi ngi noonu nit doo xeeb sa morom quoi ci gàttal bu dara yàqoo dañ koy defar man Malick man maa Malick Fall man ma kenn mun a ànd ak ku nekk mais dama xam sama bopp xam fi ma jóge xam fi ma jëm xam may kan man du ma tux man du ma naan am naa les moyens mun naa def lu ma neex ci àddina fi ma toll nii du ma ñàkk ba may dee yàlla dimbali na ma ba pare mais doxewuma ko jëfewuma ko su ma nekkee sama kër kilot laay sol t-shirt nekk nit ñi ci mbedd mi sama doom mën nañ ma seede parce que falaa màggee falaa yoro ak ñoom bëgguma ñuy gis yenn yi dafa ne man damay ñëw jaay leen maanaam d'accord nag sama kër am na ay sécurité xam nga yaa ma gën a xam mais pour protéger sama njaboot la parce que man nekkuma fa gis nga nit day xool xam ni fii yaakaar na fi dara mu dem taj ko donc dama leen di protéger mais gis nga li nga def nii yàlla na ci yàlla fayan ah. yàlla na ci yàlla defal yiw ak succès bi nga ci bëgg amaa kontaan ci jëf ji ngay jëf nii yàlla dina ko eggale mébét boobu nga eggale damay seede rek loo xam ne moom wax nañu ko téléphone mu am mébét boobu ci diggante Amina Poté ak Viviane ndax ku nekk xam na ne Amina Poté mi Viviane ay bakkanam xam nga dañuy waxal yàlla rek mm-hmm. comme nit ñi toog nañu ku nekk xam na ne Amina mii Viviane ay bakkanam ci lu ñu fekkee nit ba bañul Amina Poté mi da koo bëgg seytaane fu mu xaju rek lay dugg yàlla mi mën a boole yàlla na leen boole waat ci kàttanu yàlla ñu ànd ci bi ànd rafetee ndax ñaar ñu bëggante rek nooy réeroo te yow lii nga mébét ni Amélia bugguma woon tëb tëb wax ko nii te tombeek laajuma kii laajuma kii waaye moom mii junj na ko ci téléphone te xam na ne loolu bala moo génn dëkk bi dina ko dox waxtaan bi dem leen la gis ngay liggéey Viviane du dëgg tey ñu gis sa kër Amina donc nitu Viviane nitu Amina la nitu Amina nitu Viviane la du dëgg dëgg la xam nga lu indi woon looloo mhm. liggéey man métier bi dama ci seef dee lu garaa ngi noonu fekk ma fii e leeral leeral point alias kii da nga ko sànq doo leeral jale an kay xam nga lu ndekete du maquillage kat kese kii ndekete du maquillage kat kese kese du defar katu kese kese ndekete gis nga ku la su jigee yàlla tuuti dàq laa dox lu baax ci àddina ndax rafet alalu yàlla la yàlla moo koy tànnal boppam xool ko ko neex mu jox ko ko loolu nga wax akay dëgg li nga wax léegi nii akay dëgg Amina mi laa njëkk xam Viviane te musuma dem teleem Viviane xam naa ko bu yàgg liggéey bi ñu boole mooy garab ci kaw lay fekkante mm, tey nag muy nit ku baax muy nit ku baax Amina mii nag dañ koy takk. takk moom kii moo ko takk kii ko takk ànd ak ay mbokkam ñëw di indi bàgg bi yow nga defar Amina ba Amina gën a jongama yàlla yàlla laf cat diggante Viviane ak Amina Kumba Gawlo woo Yuusu Nduuroo ñëpp ay defaru c'est parce que li ji wax rek géem bi la rek na ñëpp ku ne naan ndox tëdd nelaw te toog dal bu ku nekk talee boppam kenn du jaxasoo kenn na ko lekkal boppam te gudd fan am wér eggale affaire u a bi moom mais non non foofu nga bëggoon baax na waaw fi mu duggoon fi mu jógee c'est bon mariage dañu nekk mais fi nga duggoon am na solo waaw lu gis nga lu rafet ndaje mu ma àggali ma àggali dafa ñor maanaam yaa ngi woon si diggante Amina voilà waaw daf ma ñor lu ma ñor la ça tien vraiment à cœur ndaxte démb laa démb la ñu jógee Allemagne def Milan def Suisse te loolu yëpp ay xéwal la euh, ci loxo kii la jóge dama koy wax ñépp a dégg ci loxoom la jóge mooy li ma wax sànq rek jëlee na sama liggéey ci zéro yóbbu ko ci cinquante te loolu yëpp mbaaxam moo ko waral Amina na mooy koo xam ne elle est très entière lu day xañ boppam defal la lu mu la lu mu yéene boppam moom la yéene ñëpp li mu yéene boppam moom la ma yéene te li ma wax ni fu leer laa ko teg ndax du lépp la ñuy wax këram bi aw ma fi sens interdit su ma ñëwee ci néegam la may teg ci kaw lalam ci kaw lalam di ma toggal di ma yekkal li ma am Amina defal man du ma ko ko defal te ba muy ba mu tàmbalee ba tey mosu arrêté donc di leen ñaan yéen ñii nga xam ne sama ay kilifa ngeen vous êtes mes maa ngi leen di ñaan daal ngeen jàppale ma ci combat bi ndax noo combat bi moom il faut moom du du bugguma ñu am ci defet daal bugguma ñu am ci defet waaw ay kilifa ngeen samay kilifa ngeen jàppaleen ci ndaxte euh, Viviane c'est une grande dame c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup fonk liggéey fonk ma fonk kuy liggéey sama liggéey liggéey bi may liggéey ak moom aw ma ci amelu ma si benn àq. incha allah. incha allah voilà donc loolu moo gën a rafet daal ndax dañ may gis ak moom dañ ma gis Amina. <laughs> kàddu nga yëkkat si xam ne lii moom xew te kontaan ci li fi xew nga nit day kilifa boo toogee ba sa kilifa yëkkati kàddu hmm. da topp ci gannaawam amatuma lu ma wax ci àddina kon mën na jàpp ni bis ñuy tey fu mu toll nii Amina Poté ak Viviane jàmm jàmm dox na seen diggante yàgg ko dégg mu ne leen doom ak yaay la dara xewul hmm. yaay ak doom la rek dara xewul ku ko nar a yàlla nga dee seen ànd bi ku ko nar a yàlla nga dee aw leen ni Viviane ñàpp ci ami amina la ñàpp seytaane doxu boo dandee ami amina la dand seytaane dugg